mbokk yi sëriñ Abdul Aziz Diaw di ku ñëpp ràññee ci wàllum ñaan yàlla boroom xaalima gi du laal suuf macha allah laal leen bant xam-xamam ak gëstoom ak ragal yàllaam loolooy li sabab réew mi yépp ak bitim réew jox ko bopp ay li ko wut xam-xam jaral gëstu xam-xam daf koy jaral dem fépp ci biir réew mi ak sax bitim réew daanaa leen wax lii di sedd li saxaar moom gisuma ku ko ci man Serigne Abdoul Aziz Diaw ni ma bu maa ngi feeg mbir mu yéeme sax ah waaw lan la mu ni ma xanaa li ñuy wax xorom si lan mooy njariñu xorom si mu ni ma bépp diggante bu yàqu bépp diggante bu ñagas xanaa dafa fekk amoo ci xorom si waaw secret bu doy waar la ci boole Serigne Abdoul Aziz jaw mooy borom rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci gàllaaj rus na maa xam nit ñi di ko néewal doole ci xam-xam sangatu bayre moom benn la ci Afrique lépp lu jëm ci muslaay kaaraange dawal seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw ma nga fële ca cees ca quartier ba ñu duppee Serigne Abdoul Aziz Diaw yow mi lijjanti ay kayit mu tëla gàllaaju kër xale bu të ay mbokkam bu lu jëm ci wàllu plante kenn mënu ko ci ci réew mi ndoxum siti góor gu néew kattan hémorroïde jigéen guddul yëg bànneex Serigne Abdoul Aziz Diaw mi ngi ceeg lu yéeme sax yow mi bëgg a jokkoo ak moom 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 waxoon naa leen ni leen bu ngeen deeti ñaan yi nit seeni mbir daw leen seeti ku ragal yàlla te am xam-xam Serigne Abdoul Aziz Diaw moo ma ci doy su ngeen bëggee dégg dëgg daal Serigne Abdoul Aziz Diaw ku mel ni moom ci Afrique benn la fi. soxna ayda Diallo euh, doon soxna Cheikh Béthio Thioune daje na ca esplanade bu Grand Dakar démb wane na fa ay carte d'identité yu bare bare bare bare nag ñu dem dellu siwaat ma ne sang bu bi soxna Aida Saliou la junniy junniy taalibe mi galal seeni carte ne ko yaa moom yaanu moom moom sunuy carte moom suñuy kër moom suñuy oto moom suñuy njaboot yaa moom suñu lépp danoo jébbalu jébbal suñu bopp jébbal suñuy nationalité moo tax gis ngeen ko taalibe yaa ngi kenn ku ci nekk indi sa pièce ne ko damaa jébbalu si ànd ak sama carte barki Serigne kenn musul gis lii ma ne tey la samedi 9 décembre 2023 fii ci diggu Ndakaaru Esplanade Grand Théâtre fii la mbir mi xewee kardante yaa ngi noonu sëñ baa ngi noonu taalibe yaa ngi noonu alaaj Modou su ma la kiyatee kii ma rek alaaj Modou ah, ah, ma la kiyatee rek kii ma son bi sax deux ans dafa am ay ay kii ay ay son ak ay yooyu dee ci jàpp rek su ma la laajatee rek jox ma euh, Assane gis nga Aida li mu def communication la de wala boog sax liñ ko defal ndax ba léegi waxut ci carte d'identité yi ab taalibe daal wax nee na ko yaa moom suñuy kër yaa moom suñuy oto yaa moom suñuy carte loolu nag ab joxañ la moo tax ma ne lee ma gis ci carte d'identité kuñ ko xëpp yaa ngay xeeñ pale waaw xanaa rafetlu ko rek rafetlu it taxawaayam ndax it fa ko kilifaam tegoon ba léegi nii foofa la teg tànkam moom soxna Aida Diallo Mm. si ak cant ak bernde ak santub sëriñam mm. man maa ngi koy conseillé rek si lépp lu mu gën a mën a jàpp képp rek dong si Cheikh Béthio Thioune mm. na ko gën a def ndax lépp lu mu am Cheikh Béthio népp lu mu mel Cheikh Béthio du keneen mm-hmm. jërul muy wàll si keneen wala muy sant keneen wala muy wax keneen na sant Cheikh Béthio mi tax mu mel ni mu mel mm-hmm. euh, ñi nga xamante ni nag Cheikh Béthio ko boole woon ak ñoom it lii ñu def rek la war a def gis nañ ni dañoo jëm si ay élection te élection yi moom pour nga am fa njariñ du ay wax mais da ngay am carte d'identité kon nag bu fekkee jël nañ seen carte d'identité jox ko ni ko boo ñu joxee ndigal de wat ñu watee te hmm. loolu gars yi da ngay dégg ñaan ndigal di wat jógee na fi mais ku gis soxna Aïda mi xam ne ndigal du wat jógewu fi kon nag nag jógewu fi mais moom waxul joxul waaye nag day xaar candidat yi xëlëf xëlëf yi dem day diglu léegi candidat yi daw xëlëf xëlëf yi dem seeti ko ndax carte waaw bu joxee ndigal nag ki mu joxee ndigal mën naa am euh, pour pourcentage bu réy si élection yi. Hmm. voilà kon daal ci carte yi nga gis waaw waaw. ñii nga xam ne ñi ngi joxe carte daal bu joxee ndigal nañ jëfe seen ndigal ndax amuñu lu dul moom ndax lii mu def nii dajale góor ñi jigéen ñi lu am solo la du moom dong moo koy def. boo xoolee Sénégal ñi ko fi def bari na da gis jigéen ju toog dajale ay góor ak jigéen dajale ay mbër ak i fecc kat làmb kat ak yëpp ñëpp nga koy def kon nag munuñu ko bañal moom mu def ko te moom miy def di da si am ndigal léegi nag moom mi hmm. ñi nga xamante ñi ngi yàq der si eh, eh, wasa bi nañ ba loolu nañ ba loolu. ñan la ndax am nañu naan gars yi fii boo demee fii nii am na ñuy defar carte comme ça di nga jël ñu jox ñu defal la ko lu man ñeent. Ah. benn carte d'identité. am na ñuy wax loolu. bi boo demee ñeenti wala juróom boo demee da sànni noonu comme saaru njaal daje carte da mel ne koy jaale. léegi nag loolu bu doon ab jàll nga foto naan carte d'identité yaa ngi nii fekk na ñu carte d'identité ya sa baax weesu juróomi nit loolu yàq der la nañ ko ba ah am na ñuy wax loolu ci whatsapp bi am na ñuy wax loolu ci whatsapp bi bëgg yàq deram te carte d'identité yi valable nañ ba loolu waaye joxe hélas. dañoo bëgg kon yàq kon candidat yi ko war a seet yàq. seen xel bëgg lay wax bu leen fa dem lii carte d'identité yi valable. Ah, encore zéro la. waaw waaw njaal waaw nañ ba loolu joxe hélas. alaaji euh, soxna Ayda de euh, image bi communication la waaye donte ni waxu ci man sax maa ngi doon wëri lu fu mu ko waxee mm. waaye daal bañ déggee kàddu yi li muy wax moom Sëñ Tuubaa la doon waxtaan ak Cheikh Béthio may yi mu ko defal mm. waaye ka doon wax daal moom moo ne Ayda ñoo moom suñuy karante yaa moom suñuy kër mm. foo ñu soxlaa ñu dem fa loo jàngat ci lii waa du ko wax dañ la koy waxal parce que am na loo xam ne euh, nii mu ko doxalee di noonu la ko war a defee pour jàpp nañ ni mu parce que sinon xam nga lii amoon na fi Mm. lii nag euh, léeboon la luppoon amoon na fi. lii amoon na fi. waaw Cheikh Béthio defoon na ko fi ci jamonoy Ablaye Wade gaa yi génn quarante yi mm. mais taxul Ablaye Wade yokkale lu doon ni tarafata ay na de. yokku dara jël mitigay sax la waaw taxul Ablaye Wade yokk dara la. Mm. te ñëpp dañoo génne woon seen carte d'identité daal yaa ngi nii. ak i mbolde waaw génne carte ak i mbolde waaw carte ak mbolde <laughs> yaa ngi dégg. Eh? donc euh, gars yi moom da boo boo boo boo wootee. di hmm. euh, dinañ ñëw moom wax dëgg fa yàlla moom euh, lekk naan. Hmm. kii moom waaye bés bu ñu duggee ca mbañ gàcce ga moom. Hmm. xam nañ li ñuy def de. Sénégal gi boobu nelawuñ de. ah déedéet waaw. d'accord gi. nelawuñ de. kon mënut a impacté dara ah, ci benn impact mënu ko def. alaaji gis nga quarante yi. mënut a def lenn lii ab naaf la de naaf quarante. oh gis nga bële a garaaw. bële gis nga yi génne quarante yi te yokkalut Ablaye Wade ñaari fois abu ko ci. loolu moo lay wax ne la gars yi choisir nañu. gars yi mën nañoo Ablaye dem na ba ci biir sax daal moom xam ni trahison am na daal. Ah, <laughs> non dama la bëgg a xamal ne la lii moom ay communication la rek. gaa yaa ngi jëm ci élection maa ngi nii léegi nag moom bu ci mënee lekk wërsëgam it mu lekk ci wërsëgam maanaam foofu est-ce que doo ci jàngee itamit ne alaaji même bu loolu amee hmm? man tey sama sama sëriñ fi ma jébbalu bu ne woon samay taalibe nañ ñëw ñu ñëw mu ne jalal leen mi fii carte d'identité hmm? man dinaa jal hmm? waaye sëñ bi xamul kan laay voteel waaw loolu loolu la rek xamul ku may voteel it moom moom ak ka muy waaye man it ka may voteel waaw mën naa am carte d'identité alaaji la muy bari bari bari am na ci carte d'identité yoo xam ne ñeneen a ko moom non non carte kañ fi toll nii Euh, moom moom euh, ñàkk ka ko jàllu xam nga kii da kii mooñu ñu moom moo moom suñuy carte mel ni léegi dafa différencier nit kee carte d'identité bi sax xam nga mooñu moom moo moom suñuy carte d'identité. Euh, moom xamul ni mooy carte d'identité. <laughs> moom mooy carte d'identité <laughs> comprendre ba ñëwee jug carte yi. bu jafe am na yoo xamante ne bii boo demoon peut-être sax am na ñu ko. ëpp mbooloo ca mbooloo ba bu dekkee ci élection xam nit ki nit ñi dafa am ku nekk dafa am lu ñu lay toppee mooy bi comme bi Youssou Ndour ñëwee rek dugg ci politique bi. Eh, am na ñoo xam ne faa nañ Youssou Ndour ci musique. d'accord mais nag bu génnee musique bi pare nañ ci. d'accord Sénégal nag loolu moom sénégal yi ñu ngi koy doxee. Mm-hmm. am na koo xamante ni kii tey. mi ngi topp sëriñam. waaw waaye mais da ko topp ci sëriñ. Mm-hmm. mais su ñu génnee cadre boobu lu jëm ci mbirum àddina ak ban vision politique la am bokkule wu ko sëñ bi. Mhm. bokkule wu ko gis-gis. donc sëñ bi am na nu muy choisir da ko fay bàyyi daa dee dem choisir feneen. parce que loolu mooy li nga xamante ne bi tamit mooy lii lool normal macha allah waaw gisoon nañ fi daal loolu.